Euh, sëñ Khadim Amar Moutala président comité d'organisation 64e édition Magalu Gadiel euh, tënk nañ ci CRD bi ñu doon amal tey ci teewaayu gouverneur de la région de Thiès ak ci préfet département bu Tivaouane ak sous-préfet bu Ngandiouf ci teewaayu Serigne Moutada Amar xalif de Gadiel ci wàccaayu 64e édition wu Magalu Gadiel ay tënk yu am solo waaye li ñuy jàpp rek mooy biñ ci génnee. yëg nañ ne génn nañ ci réunion bu am solo moo xam ne comité d'organisation bi yëpp am nañ ci mbégte donc mu nekk 64e euh, édition waaye ngeen may ma euh, ma ñaanal yàlla la xale général des Mourides sëñ Mountakha Bassirou Mbacké yàlla yàggal ko fi féq fanam te defal ko wér-gi-yaram waaye di ñaanal sëñ Moutada Amar mi nga xam ne mooy xalifa gàddiyal moom la yàlla teg ci boppu njaboot gi yàlla may ko fan wu gudd moom it ak wér-gi-yaram mu jiite màggal gi comme ni ko daan jiite euh, sant également les autorités administratives yi nekk ci région de Thiès euh, ki ci jiitu di le gouverneur de la région ci taxawaayam ak ci yitte yi mu jox bis bi ak ñi nga xam ne ñi ko fi jiitu sax noonu lañ ko daan defee ñoom it ñu sant leen gërëm leen ñaanal leen yàlla waaye di sant le président de la république ci taxawaayam moom tamit ci màggal gi ak le ministre de l'intérieur euh, Antoine Félix Diome euh, di leen sant ñoom ñëpp di leen gërëm ci taxawaay ki gis nañ ne waxtu wu comme ni nga ko waxee bu ñu nekkee ci wàccaay bi ay directives dinañ ko joxe. waaye directive yooyu yëpp bu ñu ko joxee gis nañ ne bu ñu ci jógee rek lépp dina dina jaar ci yoon te ni ñu bëggee noonu la ko chef de service yi di defee loolu nag mën ngaa tàmbalee ci sécurité muy wàllu gendarmerie waaye bu ñu wax sécurité également il y a appelle la sécurité routière muy wàllu tali bi xam nga diggante Pekes ak Gadiyel ci diggante bu toll ci juróom benn kilomètre dem bi day am jafe-jafe parce que rang-rang la donc foofu nag euh, li ci am solo mooy engagement yu ñu jëlaat encore pour jàppaleel gan ñi dem beeg dikk bi gendarmerie dégg ngeen dispositif bi mu wax ci wàllu barrière ci wàllu force de l'ordre ba pare conscientiser conscientiser nit ñi ci ñu fexe ba di sàmmonteeg seen alal pour que kenn du ko mën a jël loolu dafa am solo waaye innovation de taille également dégg nga médecin chef bi lu mu ñaan sëriñ bi ci ñu ñaax population yi pour ñu ñàkku te loolu dégg nga li ci sëriñ bi wax man sama carte ngi nii ci sama poche ba pare wax na njaboot gi yëpp it ñoom it ñu ñu defee ko noonu. loolu nekk loo nga xamante ne lu am solo la ndax bariwul lu ñuy gis ci Kayor des profondeurs ay équipe yu ñëw di seet nit ñi ba pare di leen ñàkk ci lu jëm ci Covid 19.